si mënuma fekk les populations de ngente aussi te duma aborder aussi un peu le marché centrale bi nga xam ne incha allah après Tabaski le boulevard Mao Doucouré sera totalement dégagé c'est-à-dire les para les bases oranges yëpp après Tabaski dinañ ko dindi les trottoirs yu nekk ci boulevard bi dinañ ko dindi on m'a fait trop de tort ñu ni maire ko fa def man dama autorisé vendeur de légumes yi pour ñu toog fa vendeur de légumes yi ñoo wuti seen bâche ñoo fa def bâche ñoom ñoo jaay seen bâche soxla naa sama boulevard dinañu dégager dinaa récupérer sama boulevard que ñu grève que ñu marche j'ai la responsabilité d'aménager ma commune je le ferai man ay marche ak yooyu tiitalu ma lu may xool mooy est-ce que population bi lii buñ ko defee noonu lañ ko bëggee déet wala waaw su ma xamee ni waaw la je je fonce donc loolu aussi doon baax ma indi ko ci leeral du encouragé waat bu baax a baax la société